alhamdulilahi rabbil alamin ay conseil ñeel monsieur le président de la république du Sénégal monsieur Macky Sall et président Ousmane dinaa wax ci détenu politique yi li may njëkkee rek mooy président dinaa ko xamal ne yaa ngi dox jëm ci jéego boo xam ne bu am solo la tey buy indi jàmm la day yoon la sëriñ bi maam Cheikh Ahmadul daan na wax ne jàmm de gisul lu ko gën fii gisul lu ko gën fale yi fi jaar rek bari na lool waaye point bi nga def toujours rek jàngat gi ma ci am mooy président am na ay jege ñaalo yu la jege lool yoo xam ne ci bépp

jamono président Sarak Aliou Sall conseil na la conseil bu am solo bu matoon a bàyyi xel ndax it nag li ñuy wax jàmm dafa am solo te lépp lu koy xaj nit rek war ba loola bañ a am Aliou Sall Sarak nee la ko dara jaral képp ku la ko conseil waxalu la sa jàmm te bëggalu la jàmm xëy na boppam ñii ma la wax nag moom toujours foofu la ñuy ma répété ko Moustapha Diakhaté Cheikh Yérim Seck ma jàmbal Diagne maître El Hadj ñii ci bépp jamono da ngay ne sax fi décision bii nga jël li ëpp ci waa Sénégal am ci mbégte rafetlu ko ndax it boo gisee Seydina Ousmane ne woon dialogue du ko def mukk ak ku jël pistolet teg ci boppam loolu neex naa misaal kon fi ne nii c'est pas parce que dafa dañ ca loola waaye nag lim jublu woon a wax rek mooy doo jàpp ay détenus politiques yoo xam ne ñëpp mën lañ àndaloon ñoo xam ne sax man ñëw di ko wuy si day mel ne la alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf Ousmane Sonko mi nga xam ne am na niteeg dégg nga jàmbaar rek ne loolu moom du am mukk li fii ak ñooñe génnuñ loolu nag dox nga ci jéego ndax ñooñe ñi ngi génn di conseil constitutionnel wanewaat nañ ak njàmbaar te ñëpp war nañoo saluer dégg seen jëf ji ndax jëf la ju am solo am réew bu tolloo da ngeen di jël fen ak dëgg ñëw na nga xam ne lu fen wa rëy rëy rëy du fa taxaw dëgg mooy mujj ñëw kon conseil constitutionnel ko woote woon gàcca ngeen seen bopp da ngeen gàccaal seen i sët ak seen doom ndax da ngeen a fekku fen ngeen wote ko alors ma ñëwaat ci président de la république monsieur Macky Sall ci nii muy doxale ndax gis nga le passé c'est passé gis nga booy déglu Macky Sall ca démb doo ko bëgg sax di nettali Macky Sall ma daan taxaw di wax di fëgg dënn dégg nga loolu duma ko def au nom de ñaari ban ñett mu féqu nangam wane dooleem tey jii nag dem na ba xam ne ah ndeke nag la ko jago benn mbindeef mu ko jago amul yonent yàlla Muhammad ci boppam moom moo gën ñëpp Abu Taalib mi nga xam ne bàyyam mu ndaw la def na lépp pexe ngir mu tàbbi ci lislaam suñu borom gàntal ko kon ginnaaw yonent bi la yàlla mayit loolu rawatina beneen mbindeef Macky Sall euh, daa jafe def dialogue ñu bëri d'accord nañ ndax dialogue mooy indi jàmm ci réew mi dialogue bi nag du caage day pousse élection yi ba neuf mois yooyu wax déedéet dialogue la boo waaye ñu def ko ci mars bi wala lu ko suriwul dara donte ne deux mois lay doon l' essentiel mooy Ousmane Sonko ndax parti Pastef bi dañ ko koy delloowaat wala ndax dañoo waxoon ne dissoudre nañ ko ndax loolu kayit la samp fas yéene mu doon candidat te ñëpp gis ne wala sondage yu bëree bëri gis ne kii kat mi ngi cib lim loo xam ne bu fekkonte ne damay wax ne pourcentage la daanaka du jar sax ma koy kii ndax damay analyse ba tey alors di waxaat Macky Sall ne ko lii nga def lu baax la ne ci Taïf ay force force occulte lu ne wax nañ ko fi yooyu yëpp tey furaas mel na kon yooya ay baat la woon yuñ doon teg waaye fekk na seenu xalaati bopp dong la kon décision bi nga jël képp koo xam ne nii dafa a taxaw nar la ci dévier xam ne sam boo ko mënee faagaagal moo xam da nga koy tëj damaa ci mën a tëj kennam déet waaye bu dee am na ñeneen ñu mat tëj ñeent ñii la nga xam ne ci bépp jamono dañuy taxaw naan la li nga def baaxut waroo koo def nangam ak nangam te seen intérêt personnel

Mauritanie moo tax kenn ku ko def yëf Ousmane Sonko nag ak Bassirou Diomaye Faye ak waa Pastef maa ngi leen di xam ne buñ yaatal benn opposant bañ leen di asaaloo ak di euh, euh, ba yàlla dogal Ousmane nekk au dangay gis ñuy buruxluwaat di bëggaat buntu wala di bëgg kii len nag dàquma ko maanaam ñi nga xam ne ñoo cay nuru ay intellectuel képp koo ci xam ne gis nga ne yow sa parti ba nga doon làgg

dëgg ci réew mi ñuy jaay Ousmane Sonko doole ñoom seen yoon néew ci woon kenn ku ne woon parte jàpp njàmburam au contraire nga dégg sax am réew kenn ko laaje nen te fekk na Ousmane Sonko ne ki mu jàkkaar loolu daa am nooy waxee ak moom mu doog laa respecté loolu moo indi yi yëpp kon Macky Sall dees ne lu ko war ñiñ jàppoon booba ba tey xëy bàyyi leen ne defu leen dara bu ñuy lijjanti di bëgg jàmm xëy na ne dañ cee war a ségré wu di tëbëka dal donte ne lu baax warees na ca ñàkk nga bàyyi waaye a dégg a yàq yi dund ni ko Sénégal yëpp yi dunde ñu fàtt lépp waaye boo bëggee jaay doole mbaa nga bëgg indi xam ne réew mi xamu ko ñëpp mën nañoo jugandoo te bu ñu ko fuqarcee nag du bokk boo ko joxe ak sa tey bakkan kon daal jëf la joo xam ne wax dëgg yàlla dees ci sant waaye nag di la moy moytuloo àndandoo yi nga xam ne am nga ko te ñu bëree bëree bëri di nekk ci télévision yi di lëndëmal ak di saaga ak di ñàkk teggin peuple Sénégal ñoo leen ëpp doole fukki nit képp mënuñoo ne ci ruq fas yéenee gagné lu mat 17 millions de euh, de personnes kon lii nga def mooy li war a am képp ku la cay ŋàññi mbaa mu la cay xasaka def yëf nag la war mooy bu fekkee ne am na place ca kaso ba nga yóbbu ko fa ñeent ñii mën a limal nag ay seytaan lañ ñoo xam ne liñ la yàqal bëri na lool am na ñeneen nag ñoo xam ne limuma leen waaye ñii ñoo ci gën a fës kon daal ñi ngi ñaanal yàlla def jàmm ci réewum Sénégal te Macky Sall yow it yàlla sàmm la aar la ndax wax dëgg yàlla sëg mujj ci nga yàqee lu bare bare bare bëri waaye bëri na loo xam ne xëy na def nga ko ci réew mi yaakaar naa dana ci ànd man bien que dana am nag ñu ci ànd man ngir xëy mere la waaye nag def nga fi loo xam ne mënees na koo xam kon ñu ngi yamani foofu rek ab jàngat la di ñaanal Ousmane Sonko ak euh, Cheikh Mahamadou Bachir Diomaye Faye ak mboolem ñu ànd ak ñoom yàlla may leen ndam Mustafa alhamdulillahi rabbil alamin